asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di leen bu baax di leen sant di leen gërëm eh, di leen wax ne tey incha allah dañoo ñëw indil leen secret bu am solo lool bu jëm si suratu yaasin suratu yaasin mais nag secret bi ñaar la benn bi maanaam seen wàllu kaaraange la. pour ngeen am kaaraange lépp lu mu fekk si yéen tamit nekk lu bon mu dindi ko ñaareel bi luy gën a takkal seen biddiw maanaam lu leen di gën a euh, ubbi seen buntu wërsëg may leen wërsëg bu yaato yaatu yaatu waaw te ñaareel damay taxaw ci point boobu gis naa ne daal su ma dugalee affaire mbëggeel ak yi demee noonu ñëpp dañuy daw dem seeti ji ko waaye boo dugalee lii euh, ñu tuuti tuuti rek ñooy kii maa bëgg na vidéo bi ngeen déglu ko ba mu jeex ndaxte loo si kii rek loo ci zappe rek amna loy loy recc ngeen tewlu ko bu baax da nga xam adina bi ay mbëggeel amna deug la waye nak kaaraange sa bop sa bu yaram bi nga juksi si si tamit si lo xam mo lay ubbi mo gëna upp solo lol moom si la bok ci dund bi ay affaire mbëggeel ak yu demee non waye tamit ngeen bàyyi xel li waaw ndax li moom boo amé mom mëna wax né lu bari dootu manké kon tewlu leen video bi bu baaxa a baax ngeen deglu may wax waaw kon bismillah li euh, ngeen war a def mooy lii may bëgg a wax euh, muy dangay ngay jël lu man ñetti fan yoo xam ne da ngay déglu da liir suratu yaasin su ma ne déglu nag mooy nga tiim bi di ko jàng aayo boo jot waaye loolu guddi nga koy def maanaam ñetti fan lay doon ñetti fan yu teglante guddi gu jot ay trois de du matin wala deux heures du matin ba ñëpp tëdd daal nga jël sa kaamil nga jàng suratu yaasin aayo boo jot nga def falaxi juróomi yoon def naa si juróomi yoon def asbunallah wa nihma wakiilu nga def ko juróomi yoon dégg nga loolu damaa ba ngeen bàyyi xel maanaam dangay jël sa kii sa kaamil nga jàng suratul yaasin aaya boo jot nga def falaxi juróom def naa si juróom benn gis nga maa ngi ko bind noonu def asbunallah wa ni'mal wakiilu dix-neuf fois mooy fukki yoon ak juróom-ñeent su ko defee nga jël nga ëf ko ci ndox Fek bo da nga ut benn show bo xam dang ci def ndox sa boko jang jàng guddi goo nga euf tej bu jàngatee beneen comme ni mo la nga euf tej ba ñetti mat su ko defee nak si ñetti bis yoy nonu bo xëyee su suba gi manam suba gi waxtu julli bu julli bo julli rek da nga def la ilaha illa la ilaha illallah la ilaha illallah 1494 fois waxtu julli bo julli bari wut 1494 fois si la ilaha illallah la ilaha bari wut ngeen fexé ba jëm ko ngeen def ko dégg nga guddi gi guddi gi ginnaaw bi nga defee suratu yaasin bi noonu ba pare nga bàyyi ba pare wala balaa nga koy def sax bu la neexee bu julee géeyee ba pare tuuti rek nga jël def laa ilaaha illallaah moom tam 1494 fois yaakaar naa lépp leer na lépp maa ngi ko bind foofu bu ko defee nag si ñenteeli fan bi fekk boobu ëf nga ndox mi li ngay jànganoo ëf nga ko si ndox mi mais nag zikar bi doo ko si ëf li si kaw ngay ëf li si kaw mooy suratu bi soo ko jàngee verse bo jot manam ay bo jot nga def ci faleex yi juroom def na ci juroom def asbunallahu wa ni'mal wakil 19 of course nga tej defaan noonu ba ñetti fani jeex mais nak waxtu julli bo julli rek da nga def la ilaha illallah zikr ko 1494 fois guddigi tamit da nga def la ilaha illallah 1494 fois après si juroom si euh, si ñeenteeli fan bi 4e jour bi ñeenteeli fan bi mom ngay sangolo non moom ngay sangoo léegi loo nga xamante ne ni ëpp nga ko ci ci saafara si nga sangoo ko moom soobee yàlla yonent bi moom boo paree rek mën ngaa wax ne moom alhamdulilah da nga sentir ne sax sa yaram dana oyof lépp lu fa nekkoon lay kii lépp dana kii bu soobee yàlla waaw yaram dana oyof tool soo ko mënee tamit da nga koy bind da ngay bind li may wax nii surtout yaasin ngay bind ba mu jeex aaye boo yegg nga bind falaxi juróom bind naa si juróom benn bind asbunallah wa nihmal wakil 19 fois fukki yoon ak juróom-ñeent dégg nga nga def ko soo paree nga xoj ko dégg nga di ko sangoo nga xoj ko ñetti fan ñeenteeli fan ba nga sangoo ko après ngeen xool loolu dama bëgg ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax dégg ngeen parce que euh, bu leen leerul itam ngeen ñoom leeralee leen ko ndax lii dafa nekk secret boo xamante nii bu bu am solo la te baax si surtout yaasin te yaasin dañuy wax ne mooy xalbu quran yasin de ubi, yasin da lay aar yaasin day defar diggante dal gis gisuma lepp lu nit de bëgg te yasin mënu ko def defal si Yene, nga jang sortu yasin yene si li nga bëgg rek nga xol te and ak set ak sel waaw euh, benen secret bi ma leen jox mi ngi nonu mooy walu fataxu bi kay bi si walu wërsëg mooy da ngay jema japp ba set guddii ba ñëpp teud bi mom benen secret la bu bokkut tok bu ci kaw bu juroom ñaari sondel nga tek su juróom-ñaari sondeel teg ut sa almet teg wala sa birke nga jàng suratul yaasin suratul yaasin mubin boo yegg nga taal benn sondeel xam nga ñaari mubin moo nekk foofu mubin boo yegg rek taalal benn sondeel mubin boo yegg fekk da ngay rangale sondeel yi nii mu nekk sa kanam da ngay jël eh, sondeel yi nga rangale ko mu nekk sa kanam su ko defee sondeel bo yegg rek te fekk yegg nga ci benn mobile bi premier mobile bi nga taal deuxième mobile bi manam da ngay jang ba accès ci deuxième mobile bi nga del taal nga jangat accès ci troisième mobile bi nga taal nga jangat accès ci quatrième mobile bi nga taal nga jangat accès ci cinquième mobile bi nga taal nga jangat accès ci sixième mobile bi nga taal nga jangat accès ci septième mobile bi nga taal nga ne ñaari sondel yépp tak na rek boobu sootu yaasin nga jàng ba mu jeex waaye mu boo agsi rek taal nga benn sondel kon gis nga ne am nga juróom-ñaari sondel yu nekk sa kanam yoo xam ne taal nga leen bu la neexee si jamono jooju noonu del ñaan sa soxla ñaanal li nga bëgg si wàllu ubbeeku gëmmal rek dégg nga nga mel ni koo xamante ne ni yow li nga bëgg sa bopp bi daal nga koy def sa tet bi di ñaan di ñaan di ñaan rek soo demee ba nga xamante ne nii kii nga bu la neex mën ngaa dem sax tudd wala nga dem nga toog fenn après sondeli dina dem dem dem dem dem dem ba commencé jeex xam nga bu sondeli jeexé day am ay ruit moy ruit restant yo noonu nek ci kii bi xam ni ñu koy waxee waaw ruit bi rek sondeel bi dem na ba jeex ba fay ruit yooyu ngay jël def ko ci si ndox def ko si chaud wala ci leket leket mo gën nga jël ko di sango sangoo nga jël ko sango ko bu la neexee nga sango ko ben yoon bu la neexee tam nga gi kii la mu yaay xol rek nokay defé waaw yaakaar naa ne li mu wax noonu si côté suratu yaasin boobu noonu leer na mooy fi ngay taalee sondeel yi baa leen ko xel juróom-ñaari sondeel lay doon comme ni nga gisee si écran bi juróom-ñaari sondeel lay doon waxuma nag nga sondeel boo dem rek ne mubin taal mubin taal déedéet da ngay jël yaasin di jàng yaasin wa quraan hakim innaka la mën a muslin bu asee ba si mubin booy njëkk a jot nga taal nga continué waat mubin boo njëkk a jot nga taal ba mu jeex bu la nexé itam nga jang sortu yasin bi benen yoon la bi bokkut ak sonde bi bi passé na mais jang sortu yasin bu dee da nga am soxla ci nit wala sa digënté yaay nit hein nga bëgg mu neex wala mu ratax jang sortu yasin mubin bo aksi rek hein jang ci seen digënté li nga bëgg nga continuer mubin bo aksi nga jang ci seen digënté lo bëgg yaak waa continuer continuer so paré nga ko sa kanam ñaan ci ëf si sa kanam lu tam benen yoon la yasin itam su fekke ne bëgg nga am karange comme karange bima joxe fu baax na waaye bi itam benen mbir la bi mom da ngay da ngay bind sóoratu yasin comme ni ko jeexe won fan yi la passé mi mi yasin yeb ngay ubbi def sa tur ci kaw def asbunallahu wa ni'mal wakeel ci suuf def wallahu yahsimuka minan nas ci suuf ba def ko ndomba bo mom te dal nga nelaw waaw wala nga def sóoratul yasin bo defé sóoratul yasin nga bind ko ba pare mu biin boo àgg mu mubin bi ngay yaatal nga def wa zalalna lahum fi minha rukbun wa minha na si miim yi mu miim mubin yi rek dégg nga nga def si loolu noonu nga def si tamit sa tur boo ko xaddatee comme li ma leen si jàngaloon te fan yi la passé boo xadatee sa tur mu jox la cent cinquante neuf wala deux cent wala quatre cent lu mënti doon bu defee nga xadat ko nga bind ko foofu si biir su ko defee soo paree nga tëj ko loolu noonu bu la neexee mën nga def ndomba tak bu la neexee nga def ko safara nga sangoko waaw ngeen baye ko xel bu baakha baakha baakha baax lañ fi jox yépp muy yasin qalb qur'an yasin dal amul lu munut lepp loola jaxal si adina, la la wax lepp loola jaxal si adina, dama nga dem jël yasin. bul sax dem di sonal su bop wala ci dara dama nga dem jël yasin, nga def sa yene da nga set sel waxna na leen ne jëm leen set jëm leen sel jëw leen fexe ngeen ànd ak njàpp fa leen toll boo leen ko mënut waxtu boo leen def dara ngeen jàpp dem def ko di julli waxtu juróomi soxla boo am yaasin mën na ko régler yaasin soxla boo am moom mooy xal bu quraan soxla boo am na ko régler jiitalal sa yéene jàng yaasin ba pare ñaan sa su soxla incha allahu taala ànd ko sell yàlla na fajal soxla boobu waaw kon nag gëm leen alxuraan te xam ne alxuraan moo nekk si kaw lépp man ni ma ko gëmee noonu laa leen koy gëmlooyee man damay yaakaar ne ah dëgg la nag sunguf am na ren am na galaay bi ñuul am na man galaay bi ñuul lu mu mënti gaaw gaaw man alxuraan dama ko gënal alxuraan daal mooy lépp lépp bu leen gis nit ñi def galaay ñuul ngeen jël gëm galaay yu ñuul yooyu ba nga xam ne yéen ci alxuraan gi ngeen xamante ni moom leen leen tuddee moom leen leen jàngal leen di ngénte Ah, bu ngeen génne àdduna moom leen leen tegal ngeen jël ko naar ko nar koo nar koo tuuti wala nar koo xeeb naan gaawut ak nangam nangam loolu bu leen ko gëm alxuraan gaaw na alxuraan barke na alxuraan moo ëpp lépp looy gis ci kaw suuf alxuraan ak ëpp doole waaw benn aaya rek boo ko jëlee tey jii nii nii nga nar ko peese ak leneen da koy lëng da koy daanil kon nag ngeen war a xam ne eh, alxuraan mooy lépp ci àdduna bu leen ko xeeb. كون يم في دا لا ديك داجي بو صباح ان شاء الله سي بنين فيديو جزاك الله خيرا